salaamaaleykum mbokk yi jullit yi ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku ci nekk ci turam ak santam di leen ziar di leen balooxa di delluwaat tey jii nii ci bés bu màgg bi nga xam ne mooy bésu tabaski euh, di leen baloox di baal ñëpp ak ñaan yàlla yàlla jéggal ñu yàlla dool bu baax a baax a baax donc euh, di wax rek asalaamaaleykum donc li nga xam ne moom mooy euh, jamono mooy tey jii nii ñuy julli julli it di ñaan yàlla defal ñu sutura bu baax a baax euh, barkeel lépp loo xam ne euh, yàlla euh, dogalal nañu ko ci bërëb yi tey képp ku ci julli lépp lu ci waay ñaan ci fan yi jiitu yi ñu tel toll tey ak yi di ñëw yëpp yàlla na yàlla nangu ñaan yëpp ñaan yi nag yàlla na ko yàlla baawaanal ci àdduna bi yëpp di ñaan yàlla dolli jàmm ci àdduna ak fépp foo xam ne yàlla ay am na fa ndax ku nekk xam na ne jamono ji yëngu na tey ji fi ñu toll nii euh, donc dañuy ñaan yàlla yàlla suturaal ñun ñëpp ndax olof day wax ne ay du yem si boppu borom donc tey jii nii bu ñuy ñaan yàlla euh, lépp loo xam ne mooy wàllu àdduna rek nuñ ko ñaan yàlla dool ñu sutura bu baax a baax li nga xam ne mooy yëngu-yëngu yi ci jamono ji muy ci Ukraine ax muy ci feneen ak lépp loo xam ne am na ci àdduna donc rawatina fii si suñu Sénégal yi nga xam ne moom la ñu nekk nii di ñaanal aussi ñi nga xam ne mooy suñu xale yi nga xam ne ñoom ñooy dem ci mbënd mi di ñaan yàlla yàlla sutural leen jàmmal leen ndax ku nekk xam na ne tey jii nii euh, beddokonte bi am na ci jamono surtout suñu Afrique bi donc suñu woy suñu xale yi sonn nañ trop ci àll bi di ñaan yàlla autorité yi lépp loo xam ne mun nañ ko si jàppale leen ñu jàppale leen bu ñu leen mën jàppale ñu dem bu leen nee jàppale ñu retourner fi ñuy suñu dëkk bi ndax jamono metti na xëj teral seni njabot ak seni wayjur motax ñuy sonn ci àll bi waye bu leen jàppale won aussi fi si dëkk bi mu gën di dellu si aussi fi nga xam mom moy situation dëkk bi donc toll nañ fo xam ñu ngi jëm ci élection donc tay ji campagne bi mu ngi wara commencer donc di ñaan yalla ñu dugg si ak jamm ak salam euh terminer ka jamm ñu dem ci élection yo xam vraiment yu paisible Il y a vraiment dina doon élection yoo euh, monde bi dinañ euh, Sénégal dëkk la vraiment dëkku jàmm la vraiment vraiment dans la très bonne condition donc tey sénégalais yi nga vraiment discipline ak yar lañ xam ñu wax rek vraiment ñu ngi ñaan autorité yi nga opposition ndax euh, ñu ñaar ñëpp ku ci nekk euh, mun ngaa yëngal waaye bu ñu defee jàmm yàlla dinañ def jàmm li am importance mooy ñun euh, dañ nekk ci dëkk boo xam ne mosul xam yëngu-yëngu donc ñu ngi ñaan yàng yàlla yàlla bu mu am mosa am yëngu-yëngu di wax rek ne sénégalais yi nuñ daan def rek nawoon fawoon bu ñuy fal kart yi la bu ñuy folli carte yi la je pense que ne du mbedd mi mooy fal du bruit mooy fal du yàq-yàq mooy fal du pas moy fal mais li fal moy les cartes yi nga avons ne lañuy euh, voter ñuy ñaan euh, ñu dugg ci ci di wax aussi yalla na opposition bi gagné ñun en tout cas wa avons euh, à partir d'aujourd'hui ci campagne bi opposition bi nga opposition sénégalaise pour que ñu vraiment fi ci Sénégal ci assemblée nationale